Mar. Luttons contre l'indiscipline au Sénégal. Frappe. Sénégal notre priorité SNP. Nitu Dëgg Valeurs. Y'en a marre African ak euh, Fouta Tampi ak Fouta Tampi muy euh, juróom-ñeent mbootaay ñoo àndoon euh, démb ci manifestation bi nga xam ne ñun ñoo ànd woote ko ngir wane suñu ñàkk ànd ak parrainage électoral bi. parrainage électoral bi duma ci yàgg cour de justice bu CEDEAO bi génnee dogal tey ne sanction daan daan sanction daan yi nga xam ne moom lañu daan Mali baaxul du dëgg du yoon cour de justice bu CEDEAO boobu moo génnee dogal daaw presque ci jamono jii mat na at génnee dogal ginnaaw bu maître Abdoulaye bi jiitee USL parti politique bi ñuy woowee USL génnee dogal ne yow état du Sénégal parrainage électoral c'est antidémocratique jox naa la juróom benn weer ngir nga jox ma rapport buy firndeel ne supprimer nga parenage électoral xam ngeen toog fii di waxtaan naan waaw parti politique yi bëri na mais yéen yoon la wala du yoon yoon bu xasee ba wax looy toog naan ay dañuy toog yenn saay on est un peu mal quand des journalistes wala chroniqueurs naan ñu ndax du ñu bàyyi affaire bi dem déedéet alxuraan bu waxee fee fee bible bu waxee fee fee tooraa bu waxee dafal dafal lu tax ñu koy woowee fu mbaxane doonee benn mag xooxaan bu ñu amee jafe-jafe yoon mooy atte jeex na donc même di poser naan waaw yéen waa mouvement citoyen est-ce que xalaatu leen 300 partis politiques mais cour de justice bu CEDEAO moo wax nañu supprimer parrainage électoral Macky Sall bu buggee saytu li mu parti politique yu sakkan yi ñun ñëpp d'accord nañ ne sakkan na ndaxte lu ëpp ñett téeméeri parti politique ci 17 millions de citoyens sénégalais du dëgg du yoon. mais Macky Sall na appliqué loi bi xam na loi bi dafa am loi boo xam ne mooy wax at bu nekk parti politique dañoo war a déposé déposer seeni rapport notamment financier bu ñu ko deful ñu retiré leen seen récépissé lan moo tax Macky Sall su ko def foofu la ñu war a waxee cour de justice bu CEDEAO moo ne nañu supprimer parrainage Macky Sall ne defuma ko loolu mooy wax ci ñun ñu ne ñun Sénégal yépp ñu ngi ci kaarange ñu ngi ci ñàkkum kaarange ci insécurité ñun waa CEDEAO yépp ñu ngi ci ñàkkum kaarange insécurité bu fekkee cour de justice bu CEDEAO bu bu jëlee dogal président Macky Sall mun na ko ñàkk respecté parce que ñu ngi dégg ñenn naan ngeen jéggal ñu ci ñi nga xam ne comprendre ñu silence bi nodd euh, nodd bi moo taxoon euh, ñu noppi euh, donc euh, cour de justice bu CEDEAO moo wax président Macky Sall na nga génnee parrainage électoral ci wàllu élection Sénégal benn ñetteel bi ñaar ñetteel bi mu ne ko may naa la juróom benn weer ngir ko jox ma rapport buy firndeel ne yow président Macky Sall yow état du Sénégal génne nga parrainage ci élection Sénégal donc wax ji jarul guddal yoon moo àtte te yoon bu àttee jëfee donc ñun chroniqueurs yi ñun journalistes yi ñun mouvement citoyen yi wax ji jarul guddal président Macky Sall dafa bëggul respecter décision dogalu cour de justice bu CEDEAO te donte ñun mouvement citoyen duñu parti politique mais bari na fi ay dossiers yoo xam ne lu mel ni par exemple euh, arrêté Ousmane Ngom bii tere ñu dem manifester ville mais yóbbu nañ ko cour de justice bu bu CEDEAO yóbbu nañ ko ci yeneen jumtuwaay bu fekkee ne dañuy naan lii mbiru parti politique yi mais ëllëg. cour de justice bu CEDEAO mun na ne arrêté Ousmane Ngom c'est illégal fekk ni ñun comme mbiru parrainage dañuy naan suñu yoon newu ci te dinañ si dellu si waat nañu toog noppi léegi bu beneen dogal ñëwee ne arrêté Ousmane Ngom c'est illégal président Macky Sall ne defuma ko fekk ne ci ndorteel bi lañ ko waroon xeexee ngir cour de justice bu CEDEAO bu indi waatee beneen dogal président Macky sàll wala ki koy remplacer ak ku mu munti doon doo am beneen pexe lu dul appliqué. damay fàttali ne ay institution euh, ay cours de justice internationale yu mel ni CEDEAO jëloon nañ ay dogal ci dossier Khalifa Sall ci dossier Karim Wade président Macky Sall ne defuma ko xëy na boobu lañu waroon commencé xeex bi te bàyyi politique bi donc lii mooy wax ji ci wàllu parrainage waaye tamit askanu Sénégal moo xeex amoon na jamono yoo xam ne Sénégal booy voté amul isoloir amul mbañ gàcce. dëkk bi yëpp da ngay ñëw ci kanamu ñëpp ñëpp xam ne PS nga votel wala PDS wala RND wala yi jamono jooju ñu bëri ci ñun judduwuñu askanu Sénégal xeex ne déedéet bu ñu buggee askanu Sénégal buy voté voté te yàlla tax te du benn bët bu koy xool te du benn pression psychologique nit yi di xool nag ah kon bu ñu bëggee Sénégalais yi voté te yàlla tax nañu def isoloir mbañ gàcce. loolu moo indi histoire isoloir dafa amoon jamono yoo xam ne isoloir amul woon waaye léegi tey jii nii bu ñu waxee parrainage mais gars yi xool leen bu ñu naxante de man Macky sàll bu ñëwee man duma ma ko parrainé loolu defe naa ñëpp xam nañ ko ci Sénégal te du man rek Macky sàll man du ma ko parrainé et mun nga être sûr que sénégalais yi ku ñuy votel lañu ñu nar a parrainé donc finalement xeexu mbañ gàcce bi ça servi à quoi. donc le vote ne plus secret or parrainage fi mu nekk nii d'accord dafay jalgati le secret du vote beneen bi mooy ñun citoyens yi bugguñu mu am un filtre antidémocratique comme le parrainage bu tax Doudou war a nekk candidat te mënul nekk candidat et que parti yi mag yi rek yi am doole rek te parti bu mag n'est pas égal à un projet conforme aux intérêts des populations déedéet bëri xaalis ak ak ak am parrain yu doy n'est pas égal à am projet de société bu dëppook njëriñu askanu Sénégal donc citoyens yi bu ñu buggee ñu am un choix bu bu bëri mais parenage foog ñu jëlee ko fi ba pare mënoo jëfandikoo ñaari filtre quinze millions pour bokk élection mooy boo bokkul si toje maanu Sénégal sàcckatu katu alalu Sénégal mënoo bokk élection presque loolu lay tekki ñi ci bëri dañoo nekkoon ci gouvernement bi sàcc xaalis moo tax ñu mën a nekk candidat muy ñaari filtre lii la ñu waxoon ne comme cour de justice de la CEDEAO àtte na ndigal jëfe président Macky Sall na ko génnee bu ko génnewul nous sommes tous en insécurité juridique léegi nag lu tax parti politique yi duñu xeex ak dugg na fi génn na fii pour l'instant ñoom seen affaire la mais ñun ñoo génnoon de bi ñuy voté parrainage ñun ñoo génnoon de waaye safoon na sàpp bi président Macky Sall tànnee juróomi candidat ñi génnul woon ñëpp seen ndongoñ rek moo leen dese woon donc même nous on a intérêt à ce que élection yi jaar yoon parenage bi c'est le début du hold-up électoral sàcc élection la ñu déposé nag manifestation Euh, obélisque RTS rond-point Médina avenue Blaise Diagne Jean Jaurès ASECNA ministère de l'intérieur Mor Talla Tine préfet mu Ndakaaru ne RTS ngeen di yem ñu ne ko déet tant que Macky Sall mu ngi jalgati dogalu cour de justice bu CEDEAO ah ñun moom benn arrêté préfectoral mënuñu tere manifester fu ñu neex ba keroog muy génnee arrêté euh, parrainage électoral ci élection yi te kat ñun jàpp nu ñe ñun ñooy défier arrêté préfectoral wala état du Sénégal mais état du Sénégal ak Macky Sall ñoom ñooy défier cour de justice de la CEDEAO ak askanu Sénégal ak askanu CEDEAO yépp ndaxte cour de justice bu CEDEAO elle rend la justice au nom des peuples de la CEDEAO donc Macky mooy défier CEDEAO yépp te waru ko ndaxte Macky Sall jamono ji mooy président Union africaine war a dooleel les institutions africaines mu leen di néewal doole ci ñàkk fulal dogalu une institution africaine une juridiction africaine à savoir la Cour de justice de la CEDEAO c'est aussi simple que ça wax ji jarul muy gudd ñu def seen seen euh, seen dispositif suñuy juróom-ñeent mbootaay egg nañ ministère de l'intérieur dinañ waxtaanaat suñu biir xool xeexum parrainage boobu fan lañuy ñuy jëmee lan mooy yeneen jéego yi waaye tey li ñu fi gën a indi mooy démb biñ ñu jàppee dañ fa gis loo xam ne ñun mësuñu ko gis xanaa suñuy bàyyi suñuy ndey ak suñuy maam yi fekkee ay années cinquante années soixante années soixante dix jamono xëy na parti unique wala multipartisme limité ak quatre courant waaye ñun ñii juddoo démb ak barki démb lu ñu gis ak lu ñu dund démb mësuñu ko dund ñu bëri nag di jël parole ku jël parole di foog ne kenn mënatul wax. lu romb kooku lu mu wax moo tax ñi nga xam ne yaa xamte ne bu ngeen teelee dem di ngeen rate lu bari ñi nekk fii yëpp sama wet ak sama ginnaaw ku ci nekk bu la nettalee démb lu mu dund di nga ne non non non on a le fond c'est pas possible de vivre lu lu ko raw lu ko yées mais boo déggaatee ka ca topp di nga fàtte ku ko jiitu lu mu waxoon boo dégluwaatee ka ca toppaat di nga fàtte ku ko jiitu lu mu waxoon. man xam naa dootuma wax maa ngi daanelee ci man démb defe naa ñaari groupe moo amoon xëy na nit yi dinañ ko après préciser ñenn ñi ñu ngi nekkoon commissariat central ñenn ñi ñu ngi nekkoon plateau ku nekk dina wax man ci groupe bu commissariat central bi laa nekkoon am na ñeneen ñu ci bokk dinañ ñëw nettali peut-être d'abord liñ ñu jàpp yépp nanguwuñu suñu avocat yi wax ak ñun loolu amul fenn ci Sénégal amul fenn ci àddina bi suñu avocat ñëw déglu ñu assisté ñu ñu lànk ba tëdd ci suuf loolu ak loo jéppi jéppi Guy Marius Sagna wala Didier Malick wala Yolande wala euh, comment euh, Sylvestine wala Taïga wala ñas bu Fuuta Tampi wala Abdou Karim Gueye xurum xaax loolu ñu bañ bañ bañ bañ bañ bañ loolu nangul ñu ne lii mooy droit et même reykatu nit am na sañ-sañ am avocat avocat am taxawu ko te lii bu ñu ko seetaanee mën na dal ku nekk ci ñun di wax ne Abdou Karim Gueye xam naa li ko dal moo tax mënul ñëw Dame Mbodj li ko dal xëy na mënul ñëw ak ñeneen ñoo xam ne nekkuñu fi. muy benn ñaareel bi notifié wuñu garde à vue mais ñu garde à vue de manière ñetteel bi ñu toog du dugg ci yenn détails yi peut ñeneen yi dinañu si ñëwaat ñu toog ba xamuñu ban heure ñu ñuy jël par groupe man dañ ma dugal ci benn auto L200 man rek dugal ma ci auto L200 mu jógee commissariat central xaw ma fu mu jëm mu egg si place de l'indépendance man ne leen mais est-ce que jël ngeen sama mille ak sama caabi kër parce que booy dugg commissariat dañ lay palper ñu génnee xaalis compter 23000 ak lan caabi ak sama châle ak sama écharpe. man ne leen mbaa fàttewu leen sama bagage parce que xaw ma sébi kotaan ngeen may yóbbu xaw ma fu ngeen may yóbbu mais mun leen bàyyi sama bagage foofu ñu taxaw ñu woote ñu ne am na benn oto bu koy indi noonu lañ ma jàppe L200 bi mënote ma les mains derrière le dos ñu jëm ci kanam ñu mënote ma ci kanam ñu dem ba ci kanam ñu dindi mënoti ñu daw daw daw daw daw ba diggante jam ñaajo ak Thiès man foofu la ñu wàccee ci guddi bu lëndëm wàccee ma foofu bàyyi sama xaalis commissariat central maa ngi yore 23000 wàccee ma ci digg àll Thiès bi ak benn xaalis yoruma téléphone yoruma dara guddi bu lëndëm lu nekk mën mën ma fa dal ñu egg ñu ne ma wàccal ma ne leen maa bañ foofu la ñu toog benn waxtu wàccal ma ne leen wàccu ma mu jaraloon ma nag lu nekk ma ne leen bu ngeen may wàccee da damay dugal ci beneen oto wala ngeen dugal ma ci benn bërëb kon yéen dangeen ma jël pour wàcce ma ci àll bi ma fàttali ne mbir moomu du guléet defoon nañ ko daaw suñu benn manifestation guddi ci nawet bi muy taw yoruñu téléphone yoruñu xaalis ñu wàccee suñu ay camarades ñii EMG ñii euh, xawma VDN ñii Wakam ñii Corniche waaye weesuwulu bërëb yooyu ñu ne déet bii pas di ngeen dégg localité yi man nee naa leen digg àll Thiès bi lañ ma wàccee ëpp na cinquante kilomètres yoruma paas yoruma dara naka lay def ma bañ duma génn mais bi ma waxee ak policiers yi ba sonn ma xam ne ñii ñu commencé di ma saraxu di ma ñaan pour ma wàcc ñoom ñoom ndogal rek la ñuy appliqué man ne message mais ça c'est un ordre manifestement illégal un ordre manifestement illégal maanaam dogal boo xam ne. dëppoowul ci alxuraan dëppoowul ci bible dëppoowul ci Torah maanaam dëppoowul ci yoon ci gàttal fonctionnaire même fonctionnaire de police am na sañ-sañ ne maa lànk defuma ko wuteeg defuma ko bu président Macky Sall ma ne leen naam président Macky Sall c'est un président voyou Antoine Diome ministre de l'intérieur c'est un ministre voyou waaye yéen mii tamit am ngeen si wàll. Hitler dëgg na maanaam setul ci génocide juif mais du Hitler moo yore woon fetal yeeg ñoom seen di rey juif bu nekk chefu xawma euh, les fascistes rwandais yi doon def le génocide mais rwandais dëgg la setuñu ci génocide rwandais mais ñan ñoo doon téye sémmiñ yi mënuñu wax ne ñu dañ si set kon suñu mbokk policiers yi ñuy seetaan nañu xam ne ñoom itam mënuñu nëbbatu ginnaaw commissaire de police donc mënuñu nëbbatu ci ginnaaw Antoine Diome ñàkk jom dong mënuñu nëbbatu ci ginnaaw suñu président Macky Sall le premier des voyous ndaxte ces méthodes la ce sont des méthodes de voyous maanaam police Sénégal dafa commencé ñëw jot benn affaire ñu ngi may nettali amoon na ay jamono fanweeri at ci ginnaaw wala ñeent fukki at ci ginnaaw ci benn bërëb Sénégal amoon na policier yu jàppoon ay nit ñu violé jabaru jàmbur ci kanamam. maanaam y a des yoo xam ne du ay méthodes yu bees waaye askanu Sénégal moo xeex ba loolu amatul jamono colonisation bi Sénégal nekkee moomeelu tubaab bi ci lañ doon dégg ñu naan Maam Bamba jël nañ ko Sénégal déporté nañ ko Mayombe Aline Sitoé Diatta jël nañ ko Sénégal déporté nañ ko Tombouctou 2022 ñu naan Macky Sall jël na Sylvestine yóbbu na ko Technopole Macky Sall. jël na xaw ma taay ga ak gaajo sànni na leen ci àll sim gii Marius Sagna jël nañ ko sànni nañ ko ci àll Thiès bi ñoom ñëpp dinañ leen wax Dame Mbodj jël nañ ko xawma ma Tivaouane Peulh xaw ma Kër Massar lii buñ ko seetaanee beneen yoon Fatick wala Tambacounda lañ ñuy sànni déedéet beneen yoon sax da ngeen di dégg ne dañoo disparaître totalement de la surface de la terre c'est extrêmement grave ça c'est de la torture torture mooy infliger une souffrance loolu mooy torture nous avons été torturés ku ci nekk dina la expliquer man damaa am chance kenn dóoruma ñii nar a wax sama ginnaaw di ngeen xam ne lépp dëgg la man kenn dóoruma rafetluwuma ko nag parce que man nee naa leen nañ ma traité comme sénégalais yépp waaw tey bu doon démb ci beneen oto bi lay nekk ndaxte am na fu muy toll. policier bu ñu saaga nañ ko saaga policier bu ñu dóor nañ ñu dóor nañ ko dóor am na ay policiers yoo xam ne ce sont des voyous mais policiers yooyu nekk voyous et on les accuse seen chef ñoo njëkk nekk voyous ndaxte ñooy encadrer loolu di leen di jox ordre yooyu ministre de l'intérieur moo njëkk nekk voyou parce que moom mooy joxe ordre yooyu président Macky Sall mooy le chef des voyous avec des méthodes voyous de gangsters procureur de la république nag bu fekkee affaire dong la soxla affaire mu ngi nii il doit saisir pour wax askanu Sénégal kan ci police Sénégal wala kan ci ministère de l'intérieur wala ñan ci état du Sénégal ñooy joxe ndigal ñuy jàpp ay manifestants mais yéen euh, ki doon def faux billet nu mu tudd. mais Bougazelli kenn sànniwu ko ci àll bi mës ngeen dégg jaaykatu drop dañ ko jàpp di ko libéré dañ ko sànni ci àll bi. mais gars yi ñun lu ñu def on ne se laissera plus faire on ne se plus faire lii nag mooy tax man ànduma ci te xam naa ne samay mbokk ànduñu ci lii mooy tax ay sénégalais bu ñu gisee takk der mu mel ni seen boutique lañu gis te fekk du takk der yépp lii moo tax mu am ay sénégalais. yii dund lii seen mbokk dund lii bu ñu gisee policier mu mel ni seen boutique la ñu gis mu am haine seen diggante te fekk ne du policier yépp ni mu amee ay policiers voyous noonu la amee yeneen policiers yoo xam ne ñu nekkoon commissariat centrale fekkee nañ ko ñun ndox bu ñu njëkk naan gerte bu ñu njëkk lekk ay policiers ñoo ko dem jëndi indil ñu ko te policiers yooyu bari nañ ñooñu. encore une fois ils ont tout notre respect et notre admiration ñooñu ñu ngi leen di encourager cofeel rek lañu am ci ñoom dama ne ku ñu bañ ñu bañ la ku ñu ñàkkal fayda ñu ñàkkal fayda la policier bu ñu dóorati ñu fayu policier bu ñu laalati ñu fayu c'est fini mbir mi jeex na te mbir mi duñ ko seetaan nii duñ ko seetaan nii de chef de police yi lay waxal xam naa ñoom dañoo fàtte li daloon Arona Sy Arona après les événements du troisième mandat de Ablaye Wade dafa bëggoon dem dañ ko affecté sans trafic Arona Sy police Aliou yaa ngi fàttaliku ñu affecté ko dans le cadre des missions de la des Nations Unies afrique awaa Amnesty International bind secretaire général ONU ne ko Arona Sy bii moo jiitee woon police ca Sénégal bi faat ay doomu aadama ci jamono xeexu M23 Arona Sy waroon gañe at entre huit à dix million par mois bu demee foofu gaa yi ne ko ñoppet indi ko Sénégal ne ko yow munoo teewal organisation des Nations Unies ndaxte yow bu dee sa dëkk da nga fay faat ñi nga bokkal der ñi nga bokkal askan. mais boo demee dëkku jàmbur dañ fa mais loolu nga fay yóbbu ñun nag dinañ xool dinañ identifier plainte moom mënuñu ko ñàkk déposer et torture bi ñu torturé dañ koy documenter tous les commissaires de police impliqués plateau les commissaires du commissariat central dinañ def lu ñu war a def ngir saisir ONU ñu moom bu yóbboo ñu xam ne dootuñu demati benn benn opération internationale ndaxte bu ñu bëggee tabax kër foofu lañu jëm. à la comme à la euh, lii laa amoon ci li may wax naxarlu. Euh, la nouvelle approche de la police sénégalaise bi nga xam ne ndaxte lii li muy wane mooy police sénégalaise dafa indi ay méthodes yu bees yóbbu amoon na manifestation boo xam ne ñun ñëpp dañ ñu jàpp yóbbu ñu camp Abdou Diassé ñu naan waaw lii lan la ñun kenn mësuñu jàpp ba yóbbu ñu camp Abdou Diassé ñu ne kon gars yi am na lu ñuy entraîné am na lu ñuy waajal Macky Sall troisième mandat bi troisième candidature am sax laay wax ndaxte troisième mandat du ko fi amee. troisième candidature am élection législative yii ak yeneen ak yeneen dofloo na ko ba muy jëfandikoo di manipuler les forces de défense et de sécurité ngir daan suñu bopp voilà donc euh, dinañ mobiliser wu gën a defar taxawaay bi xeex bi day continuer ba keroog ñuy am ndam fan yii di ñëw xëy na dinañ leen wax jéego yi nga xam ne ginnaaw bu ñu waxtaanee ba juboo suñu biir jéego yi nga xam ne euh, dinañ ko def ci dossier torture yi suñu fukki membre ak juróom-ñaar bu dee jumuma euh, fukki membre ak juróom-ñett dund démb dinañ ko documenter prouver ko def ci liñ ci war a def ci parenage bi dinañ waxtaanaat ak suñu biir di continuer wax suñu mbokk sénégale yi nañu dem bindu suñu mbokk yaanaa yi déposé nañ kayit ne nañu def prolongation j'espère que prolongation dina am bu amul nañu xam ne le 27 lay jeex nit yi dañu dem bindu ci nañu dem bindu ci ndaxte torture yi bokk na ci li tax ñu war a am beneen xeetu assemblée ndaxte du ci majorité mécanique bi lañu am yaakaar mu jël ay mesures ci fànn yi léegi nag ku ci nekk ci ñeneen yi dinañ jël kàddu euh, ngir ku ci nekk wax li nga xam ne moom la dund ci wàllu torture nee nañ ma nag man sama wax bi dafa gudd trop bon dama doon introduiraale <laughs> Aliou Aliou mu ngi may reetaan ci ginnaaw <laughs> dama doon waxaale li nga xam ne dama koy waxaale pour ñëpp ku ci nekk nag buy jël kàddu na wax li nga xam ne moom lañ ko def